may wax ah dañuy dañuy félicité encouragé du moins équipe bi nga xam ne moom lañ def dara ñu parce que équipe la boo xam ne wax dëgg yàlla sur le plan jeu gagné nañ am am am am

parce que yàlla xam na ne li nga question bi nga laaj bi question bu am solo la parce que ñi ngi ci juróom benneel ay bés bi ñett match yi gagné yëpp ci biti lañ ko gagné waaw ñaari match yi lañ ko benn defet mais ñi ngi ciy liggéey pour que incha allah match yi di ñëw ñu fexe di gagné parce que munoo soo génnee di gagné soo nekkee sa dëkk di ñàkk il faut que Saloum mën a gagné dëkkam pour que éventuellement année bii moom incha allah mu dellu. objectif mooy du ma ko bu fekkee ne dañu bëgg bëgg a dañu a euh, maanaam euh, képp ki nga xam ne dafa nekk ci national mooy ma jàpp mooy da nga bëgg amul équipe xam ne daf fi nekk def nañ ci je pense pas que loolu am na sens man dama nëbb li nga sas muy jël équipe bi. delloo ko ci Ligue 2 bi nga xam ne moom la jógee yaakaar naa bi parce que équipe bi waa Kaolack ñoo ko waa Kaolack parce que boo tuddee Saloum ñoom ñëpp ci équipe bi lañ nga xam ne Saloum Saloum la ñu ñëw parce que équipe bi seen la yëfu waa Kaolack la que incha allah équipe bi